yéen a ngi seetaan GM Info euh, ñoo yor léegi suñu boot Sénégal léegi ñu am partenaire boo xamante ne mooy Safina Philippine moom dañu ko jox suuf si mu si liggéey moom mu ñuy jox ndox mais par cinq hectares rek la ñuy jox kon loolu xam nga ne euh, mënul yor lu mot juróom téeméeri nit yoo xamante ne ay borom kër lañu ay borom njaboot lañu. ñooñu ñëpp xëy moo tax ku nekk ne am nañ si jafe-jafe yoo xamante ne waaye bu dul woon Safina day teg day fekk su boo xamante ne euh, boo amul ndox rek doo ko mën liggéey te boo ko mën a day génn sa ndox kon nag béykat yi dañuy ñaan état bi mu jàppale leen dañ am forage forage boo xamante ne buñ ko amee waxuma commune Sangalkam Bambilor ak ak euh, Diamniadio nga xamante ne ñoo war tooñ waaye département Rufisque képp ku fi bëgg liggéey mën nga ñëw bot Sénégal liggéey ndax c'est yooyu lañ nekk nga xamante ne dañuy yóbbuwaat bot Sénégal ci jamono bi mu nekkoon nga xamante ne ci région Dakar maanaam dafa mel ne sax euh, nit ñi bëgguñu béykat yi nekk fii ndax toujours dañ fi jànkoontel ak ay problème dañuy ñëw oto gaare fii ñu ne fii dañ fi am dañ fi leen di jox ñii naan di hectares ñii 20 hectares ñii 15 hectares Ah, ba sam béykat yi daji heureusement ñun baay bi ñu am buñ ko wonee ñooñu dellu gannaaw waaye toujours dañ ñuy force bu ko am ci si nga xamante ne ñii fii dagg yëpp dañ koy morcé def ay teere di def ay